mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi fii ci tali bi jëm jugee julleekaay bi jëm gaawaan précisément mbedd école arabe bi ah. waaw di taxaw seetlu rek ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii muy canalisation yi bu ngeen seetloo fii at bu jot daf laan taa ba gàmmu Medina Baye yëpp CRD yi dañ laan réclamé ne fii dañ ko war a defar ba nga xam ne ndox mi doot fi toog mais lu ñu remarqué mooy depuis daaw tàmbali nañu ko euh, liggéey bi sori na waye liggey bi daanaka dafa wayul parce que jamono ju nek buñ liggey juromi fan tok ñetti fan euh, léegi nak depuis 2 mois wala 3 mois ngi ni mom liggey dafa amul sax risque bi ci nek moy tane non seulement ka dañu baare tali yi mbedd bi nga xam tali pour duggu école arabe léegi c'est impossible da ngay wëri gis ngeen parce que mbedd bi mom nga doon mëna duggé ci école arabe ci benen porte bi wala porte centrale bu mag bi mais ñaar yépp dañ ko bloquer parce que mëno fa jaar liggey bi taxaw na depuis 2 mois 3 mois kenn mënul dem kenn mënul ñëw benen bi moy xalé yi dañ ci fo loolu benen risque la benen danger la té fiñuy foyé ay weñ mo fi nek ak ay ndox euh, euh, toujours nak ñun Sénégal duñu duñu ku bañu lakalé lakkaleegut mais dañuy bayyi ba danger am ba am ay ay ay ay danger ay euh, yu ci am ñu ci ñak seen bakkan wala ñu ci gañu wala dara ñu dog di wax mais canal yi war nañ ko terminer parce que nevet mu ngi ñew mu ngi jege si Euh, ñu terminer ko mu jeex benn yoon euh, ñëpp nekk ci jàmm ñi nga xam ne ñooy élèves yi yi nga xam ne dañuy jàngee biir école arabe des fois lu gën a bëri dañuy ñaxtu chauffeurs yi dañuy ñaxtu ñuy jël ci élèves yi parce que wëri bi dafa métti yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne war nañ ko xool autorités yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi ci diwaani Kaolack ñu jàppale ci askan wi nga xam ne ñooy faral di utiliser mbedd mi parce que lu ko mooy léegi tey nawet bi ñëw comme niñ ko waxee ñu nekkaat ci même situation bi ñu nekkoon daaw di fàttali rek précisément activité bi euh, liggéey bi fu mu nekk mooy mbedd bi nga xam ne moo jugee julleekaay bi jëm ba gaawaan précisément buntu école arabe muy école Nas Sam asalaamaaleykum wa